bëggee na leen en ah, tête kontaan seen bu baax a baax yi ñi nga xam ne yéen seetaan waaye nag tey dañuy ñëw taxaw si kii nga xam ne mooy Doura parce que Doura dafa jël benn décision boo xam ne ah yow décision boo xam ne dafa jaaxal ñu bëri képp koo xam ne yaa ngi seetaan seen soit décision bi Doura jël dafa jaaxal que Doura nee na combat bi nga xam ne daf ko bëgg na combattre ak Sangomar ah pour mu faat euh, bakkenu Sangomar nee na daf ko mujje teg ci suuf mais ñu bëri dañuy pose question lan moo tax Doura chaque jour mu doon wax ah, sama noonu mooy Sangomar te nu mu def dinaa ko faat mais mu xëy benn bis ne ah moom day woote jàmm mais ñun ñetti appel tamit mën naa tax sa ki nga xam ne mooy Dugal ah baay a bàyyi combat si njëkk pour ñun mooy Dugal dafa bëgg a nax Sangomar parce que gars yi da ngeen di comprendre sa noon sooy xeex ak moom ah bu dee dafa xam ni yow da nga koo bañ bu boobaa combat bi mën naa métti mais bu dee da nga kaa bëgg a jekku da mel ni koo xam ne da nga kaa bëgg bu boobaa dina gën a gaaw nga mën koo jekku mën a am si kaw si kawam victoire te dugal ko ñun benn bi noonu mën ba bëgg a def mais deuxièmement bi ba tey mën na am tamit ginaaw ba nga xam ne gis na Sangomar waaw mu ànd ak Aïssa mais mu commencé di attaqué Sangomar mais Sangomar war na ko ni ah, man mm, nekkuma comme genre nit yoo xam ne da ngeen di xëpp ñuy daw man bu dee fit fi la fekk baax mu xam ne Sangomar kii nit ko am fit la ak tamit pincelle wi ah menaces yi nga xam ne def na ko ko ak yaayu yaayu ay saa comme dem ñu ne ko Sangomar nit ku baax la te kooku pour nga xeex ak moom du yomb boobu ba tey tamit mën naa tax dugal ne décision bi da ngay teg ci suuf waaye tamit. ah euh, pour ñun lan moo gën a tax mu ne décision bi dangay teg suuf mooy ah xam na ni Sangomar mi neexut a combattre ak tamit euh, bëgg na koo nax nax boo xam ni Sangomar dina dem a dem a dem a dem ba commencé xam ni moom. kii da koo bëgg te fekk na bëgg ko te dafa bëgg si kawam victoire bu boobaa suñ commencé nekk nekk ay xarit bu boobaa dina am si moom victoire te nag Dougar gars yi wax benn bi benn affaire mësta bëgg Sangomar mësta bëgg Sangomar parce que Dougar xam ngeen ni bi mu bi ba tey yéene mooy faat Sangomar yéene mooy faat Sangomar parce que Sangomar daf koo teg coono te coono bi mooy mu faat seexam muy dabi kon du ak moom décision bi man décision bi mu jël moom Sangomar bu si defal attention ah mën na ko see jàkkuwaat parce que Dugal dafa nekk koo xam ne dafa muus mais ñu bëri dañuy sikki sàkk ndax dina ko jafe wala du ko jafe en tout cas mën na koo jëfee ndax euh, mu nax sang ma te su ko naxee dina ko am te nag su ko naxee dina ko am parce que sang moom tamit nee na dafa bëgg a juboo ak dugaag léegi nag ñaar ñuy juboo moom xam naa ak moom dina gaaw te dina yomb léegi nag dugaag moom du juboo ak moom ak sang ma après kon fa mën a xew daal foofay wax di quoi kon gars mi noonu abonné leen te ngeen patienté fan mujjee kon gars yi abonné pour te ngeen bi